Aïssatou Gueye Ba

Les cartes de presse sont également exigées. Aucune dérogation ne sera plus autorisée, nous dit le communiqué de presse de la direction de la communication de l'Assemblée nationale. L'intersyndicale du coude condamne la bataille qui a eu lieu à l'université ces derniers jours. Il informe qu'il n'a jamais été question d'ethnie et invite les acteurs politiques à épargner l'espace universitaire de leur querelle politique. Il a fait face à la presse ce jeudi. Voici leur porte-parole de l'intersyndicale du coude, Salif Sfal, au micro d'Odile L'intersyndicale se réjouit du dénouement heureux de ces incidents et salue l'esprit de dépassement de tous les acteurs. Nous constatons malheureusement que des esprits malveillants, totalement déconnectés des réalités de l'université, ont fait de ces incidents malheureux l'occasion rêvée pour s'adonner à leur jeu favori, à savoir la désinformation. L'intersyndicale condamne la violence dans le campus social. Par ailleurs, l'intersyndicale soucieux de la paix de la stabilité campus sociaux, seul gage de bien-être pour les étudiants et les travailleurs, appelle tous les membres de la communauté universitaire à s'ériger en bouclier contre toute tentative de déstabilisation de l'université pour des motivations politiques. Au nom de la paix et de la stabilité dans nos universités, l'intersyndicale invite solennellement les acteurs politiques à épargner l'espace universaire de leur querelle de chapelle politique. La politisation en outrance des campus sociaux est un facteur de tension préjudiciable à la sécurité des étudiants et des travailleurs. Dans tous les cas, l'intersyndicale se dressera contre tous les pyromanes qui cherchent à passer par l'université pour brûler notre cher pays. En définitive, l'intersyndicale appelle tous les membres de la communauté universitaire à cultiver la paix pour faire de l'université un cadre de consolidation et de l'unité nationale. La région de Matam est le parent pauvre de la politique socio-économique du gouvernement de Macky Pas d'infrastructures sanitaires, enclavement, l'eau, une denrée invisible, manque criard d'emploi sont entre autres mots diagnostiqués par euh, le mouvement Matam dit Face à la presse, ils ont appelé Le chef de l'État a respecté ses engagements pris en 2013 lors du Conseil des ministres décentralisé. Matam Dinon, qui n'exclut pas de durcir le temps les jours à venir. Abdoulaye Diop signe le compte rendu. La région de Matam souffre de tous les maux selon le mouvement Matam dit non. Seydou Ba porte leur parole. Aucune infrastructure digne de n'a été réalisée dans la région. Le Grand des Maillots continue d'être isolé du territoire national pendant la saison des pluies. Le tronçon Kilogne-Wurosogi, un parcours du combattant. L'eau, un rêve pour les habitants de plusieurs localités. Matam, un désert universitaire. Nous avons le plus faible plateau technique du Sénégal. En plus, la région est un mendiant assis sur de l'or avec le phosphate, mais son exploitation est inéquitable, regrette le mouvement. Matam dit exige une exploitation équitable des phosphates de Matam afin de promouvoir la main-d'œuvre locale, mais aussi et surtout l'emploi des jeunes. Matam dit non également la boulimie foncière et exige l'arrêt immédiat et la spoliation des terres de commune de Matam, entre autres. Tous ces mots ont été diagnostiqués lors du Conseil des ministres décentralisé de mars 2013, selon le mouvement, d'où leur appel au respect des engagements. des engagements de mars Il s'agit entre autres de désentraver le Dandemayo par la réhabilitation de la route du Dandemayo Sud, reliant de Mankane à Navel et celle du Dandemayo Nord, reliant Jorvivol à Matam. Finir sans donner les travaux du tronçon routier Kilon-Gourosogi, régler définitivement l'accès à l'eau dans le département de Kanel. Le mouvement Matam dit non n'exclut pas de durcir le ton les jours à venir si aucune réaction n'est constatée de la des autorités. ci dëkkaay di leen jox xibaar yu gaaw te dëgg Aïssatou Gueye Ba ci kaddu gi mbokk yi xanaa ñu daal leen euh, daal di fàttali rek nekkee ëllëg la euh, assemblée nationale daal di convoqué euh, député yi ca séance plénière bu 10 heures jotee ñu nar a waxtaanee nag ci examen projet de loi. numéro 21 2000 euh, numéro 5 2021 jëm ci nag dakk élection locale yi waaye itam prorogation bu mandat des conseillers départementaux ak municipaux direction communication bu assemblée nationale nag di xamle ne huis clos bi ñu naroon amal maanaam ñoom rek député yi ñu amal ko seen biir dañ ko daal di rek yaatal boole ci taskatu xibaar yi waaye lépp ci respecté rek lii di mesure barrière yi ndax ci jamonoy mbas la ñu nekk waaye ñii daal di rek fàttali taskatu xibaar yi kenn ku nekk bu ñëw na daal di rek àndaaleeg euh, lii di euh, carte de presse am ndax du ñu nangu euh, benn dérogation foofee ca biir assemblée Sénégal ngir rek euh, daal di tàmbali séance plénière bu jëm euh, ci examen projet de loi euh, jëm ci wàllum reporter li di élection locale yi ak prorogation mandat conseil départementaux ak municipaux ñu daal di dem foofee ca biir COUD nag intersyndical COUD day nakarlu tey ji cokkarloo yu am diggante étudiants yi ñu nemmeeku wala sax ñu nemmeeku woon ci fan yi ñu génn ñi xam leen rek ne mbir yooyee du xeexum waaso comme ni ko ñu bëri waxee wala comme ni ko taskatu xibaar yu bëri waxee ñuy woo ñi des politiciens ñu daal di nag génnee étudiants yi ci seen seenub coowal politique ñu teewlu Salif Fall moo yor seen seenub kaddu ci micro du Odile Minkilan ñun ñi nga xamante ni ñooy personnel administratif technique et de service nga xam ne dañuy xëy chaque jour bi yeewoon ak étudiants yi kenn ñoo xam li xew biir université ay la yéwén nag fan yu ñu weesu gis nañ ay cokkarloo yu am ci diggante ay étudiants mais Sénégal ñoo war a xam ni foo xamante ni cent mille personnes dañ fay yeewoo di fa añee di fa reeree di fa ndëkkee foofu peut-être mënul ñàkk coow waaye ñuy xamal réew mi ak waa bitim réew que ñun liggéeykat yi coow bi ñu ngi fas yéene taxaw doon benn takku pour xeex ak xiiroo beeg ñaayoo bi am biir université mu dakk loolu moom ñu ngi koy ñu ngi interpeller les autorités étatiques dafa am ñoo xamante ni dañ fiy dugal politique ba mu ëpp loolu ay la yewén mooy dëgg xeex be xiiroo be ŋaayow bi dañ cee doyal maintenant nag li fi xewoon la fois dernière gën a yokk tax ñu ne ñun ñoo xam li xew fii université mooy man damay ay ree damay jàpp bu ma toogee di dégg ci journaux yi ñu naan ay xeexu waaso dafa am biir université man dama ne damay wax ñëpp ñu dégg ko xeexu waaso amul fii biir université cent mille étudiants fu ñuy yeewoo ñaari xale jote ba seeni xarit dugg ci xeex boobu ñu bugg ko def ay xeexu waaso la vraiment man dama dama tiit bi ma déggee loolu Matam pauvre bay bëgg a dee amul dara ci lépp lu jëm ci wàllum politique socio économique amul ay infrastructure sanitaire maanaam bërëb yu ñuy fajee askan wi ndox jafe fa loolu ndaw ñi itam ñu xëy loole nag ñi ko xamle ñooy euh, mouvement Matam di non tey lañ doon janok taskatu xibaar yi mouvement boobee nag di woo gouvernement bu Sénégal mu daal di respecter engagement maanaam kàddu yi mu tegoon ci atum 2013 euh, ci biir conseil des ministres décentralisé Matam di non ne rek euh, dàqul sax gën a xeex mi bu gouvernement bu Sénégal daal di euh, défouler li mu bëgg tey lañ doon di nag taskatu xibaar yi ci teewaayu Abdoulaye Diop. diwaan bu Matam nekk na loo xamante ni lépp la manqué suñu sukkandikoo ci mouvement bi di maatam di non Jibril jaw moo yore seenub kàddu. lu ñuy tuddee infrastructure boo xam ne mën nañ ko tuddee ba tey président de la république mu déplacé dem ngir inaugurer ko daane maayo tey bu nawet bi ñëwee dañ leen di couper ak reste du ndax bu tawee ba ndox bi di bal ñu wax lu jëm ci ndox ndax ay weer yu si ñu am ay jafe-jafe yu bëri pour am ndox. rax si dool yi Matam am na alal gu ne gaaññi te mënu koo jëfandikoo muy phosphate boobee nga xamante ni exploitation bi jaarul yoon. ñu ngi tamit woote suñu autorité nañ ñu dimbali.

2013 jëm engagement yoo xam ne ñu ngay jël ci conseil des ministres délocalisé bi ñu def le 21 mars ci atum 2013 nag nangu na doon élève buy redoubler ndax ñu respecté engagement yi ñu jëloon ñu ngi laaj tamit ñu jeexal mooy travaux ñu commencé Matam. mouvement bi di Matam di non ne dàkku ñu benn yoona baral xeex bi ay bés yu ñu dënmal su fekkee amul benn yëngu bu ñu gis ci gouvernement bi. mbokk yi fii daal xibaar yi buuree di leen jaajëfal bu baax ci seen on beeg seen rajo di fi taataane xibaar yi ay sa Gueye Ba moo nekkoon ci kàddu gi ñu gërëm bu baax a baax kii di Assane Thioune moom mee féete woon ci euh, machine bi ñu fanaan jàmm